mi sunu kilifa di sunu wasila di sunu jëwriñ ci liggéeyub Serigne Touba bii mu jiite moo nu yónni wax ne mi ngi nuyoo mi ngi sant mi ngi gërëm bokki jullit yëpp waawaatena bokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew sëriñ bi wax ne ni ko baaxoo defe ca ay cantam ak i ngërëmam yu muy jëmale ci bokki jullit yëpp ndax bokki jullit yëpp tàllal nañ ko loxo mbaa moom tàllal na leen loxo ñu nangul ko tàllal googa ngir ànd ak moom ci lépp luy sàmm lislaam ji lépp luy taxaw diine ji muy sant di gërëm bokki taalibe bi yëpp nga tàllal na ñëpp loxo ñëpp tàllal ko loxo nangul ko ñu ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa muy sant di gërëm bokki taale bi yëpp itam ndax xam na ne kenn ku ne am na ci moom cofeel ak yéene ko ndam ci liggéeyam sëriñ Touba bi kon moom itam li muy ñaan rek mooy ñu ànd liggéey boobu ba bokk ndam la bokk ngërëmul sëriñ Touba la loolu la wax ne jiital ko ci kàddu yi la ci dolli ko waat mooy ñëpp xam ne màggalu Poroxaan gi ñu jógee yàggaay bi ndax moom am na fa weer bu tegal juróom-ñetti fan te weer woowu tegal juróom-ñetti fan di bis bu set mbooloo ñooy jóge fenn fu nekk ci àdduna si di ko fa fekk ngir ànd ak moom xew-xew ba ak ja weer yëpp ànd na ko bokki jullit yëpp ba ca màggal ga moo àndaat ko ñëpp mu loolu rëy ci moom lool mu di ci sant ñëpp di ci gërëm ñëpp waaye ñu xam ne nag liggéey bu yàgg boobu ak coono ya laajoon na ak nopp lu tuuti moo tax mu waxoon ne bu ñu weesoo màggal gi dana ñaan ay fan yum noppalu bokki taalibe yi ñu may ko mu noppalu ab diggante ñëwaat ñu ànd liggéey bi ndax moom liggéey bi rek ku yitteel xam na ne bokki taalibe yi nga xam ne ci biirum réew ak bitim réew fu nit na dafay jógee di indi seen i yi ngir jëmmi Serigne Touba di indi seen i yi ngir jàppale ko ci liggéey bi daaraam ji loolu de lu mu yëg la te ni mu koy waxee bu sañoon fu nit mën a jóge bu ñëwee da ko fekk mu toog ngeen saafonte nuyoonte nga jàpp jébal ko sab liggéey mu sant la gërëm la ñaanal la nga dellu fa nga jóge woon mu defal la sa addiye jooju ci liggéey bi loolu de bu sañoon waxtu wu nekk ma ca loola waaye ginaaw doomu aadama nag suñu borom dafa am lu mu bind ci moom muy man ak tële noppalu ak sonn kon bu coono amee noppalu tuuti du ca wàññi dara wéet ci ay jaamu am dal tuuti delluwaat ci liggéey bi loolu la ñaanoon ñun doon ko doon ñaan mbokki taalibe yi ci biir loolu nag mu am lu mu ci dolli ci waxtaan waxtaan weesuwul nun ñëpp yéegandoo nan la xew ci àdduna sëpp ni mu xewee ci àdduna si bis bu set ci biir réew ak bitim réew ñuy tàllal loxo di sàkku ak ñaanam ndax yàlla def ci natt boobu mu wàcc ci bindee bi sama def ci jàmm def ci yërmande def ci sutura ba woyofal nattu ba te natt bu weesuwul jàngoro yooyu ñuy dégg ci bitim réew di ko dégg fu nekk doon ko dégg ci Siin mujj mu ñëw ci Europe ci dëkki Europe yëpp mujj mu ñëw ci Afrique ba ñuy wax ne daa dugg Sénégal ah loolu nag sëriñ bi waxtu wu nekk ñin ñaa ngi tàllal seen loxo di sàkku ak ñaan sëñ bi tam mu wax ne ba mu déggee loola la ca tàmbalee ñaan suñu borom tey de loolu lépp suñ borom xam ne lépp suñu borom la jóge te suñu borom mi ko indi moo jëlewaat ko fi yomb na ko lool boobee la ko sëriñ bi tàmbalee ñaan tey rafet njortu te rafetaale ñëpp njortu ne ñaan ko ngi suñu borom dana na ko dana ko defal defal na ko mooy wàcc yërmandeem ñëm daan amee ba musiba amee wala mbas wala balaa ñu xam ne suñu borom la jógee jullit yëpp dellu suñu borom ñaan suñu borom teggi ko sëriñ bi loolu la santaane mu ne kon jullit yëpp bindeef yëpp delluwaat suñu borom jégguluwaat tuubaat ñaan suñu borom teggi nattu boobu ci barkeb sëriñ Tuubaa noonu la ko waxee ba boole ci xasida gi nga xam ne Serigne Touba da koo def ngir ñaan suñu borom ak saafara rag gum fekk ci doomu aadama ñaane su borom làqul na ca sangeem ya nga xam ne ku ca dugg mucc ci lépp Serigne Touba ko ñaane noona ba bind ci xasida gi sëriñ bi wax ne xasida gi nañ ko génne ñu gis ko kenn ku ne fexe ko am te di ko jàng wax ne sax ne danañ génn yeneen dolli ci ndax lépp ñaanu jàmm ñaanu mucc rek la ginnaaw Serigne Touba mi ko def xam na boromam xam na nu ñuy nu muy ñaane boromam te ñaan na ci xasida képp ku jàng mu saafara la gépp nekkoon ci yow képp ko jàng mu mis mu dugal ci sangeem sa nga ci dugg mu ci jëpp lor mu ci ci pexam noonu mu lépp mu ci seytaane kon Serigne Touba bu ko defee Serigne Mountakha wax ne ñu di ko jàng ak yeneen yeneen yu ni demee yoo xam ne danañ ko génnewaat ñu di ko jàng di ci fas yàlla di ci ñaan yàlla di ci fas su boroom teggi nattu yi musal na ci ndog yi balaa gi mbas yi sëriñ Mountakha nee na xam na ne bindeef yi day am nañ cofeel ci moom ak doyloo ci moom ak ak yaakaar ak ñaanam ci suñu borom moom it nee na loolu lépp ci sëriñ bi sëriñ la koy delloo di ñaanaat suñu borom nag ci barkeb sëriñ Touba mu yofal natt nattu yi teggi ko dàq ragg googu niñ ko jékki-jékki gisee ñu jékki-jékki noppi ko déggati te luy luy lu yomb yàlla la xawma zalika an lay bi asis loolu alxuraan ko wax su borom dara jafewu ko sëñ mu taxay neen su borom dara jafewu ko kon mi ngi ñaan te sàkku ñëpp ñu delluwaat suñu borom lu tuub te ñaan suñu borom ci barke Sëriñ Tuubaa mu teggi nattu bi jële fi jàngoro ji kenn bañati koo déggati moom nag nee na ni ko waxee woon bu masaan jógee ci coono yu mel ne poroxaan ñaan ñu may ko mu dem noppalu ab diir loolu ñëwaat ci liggéey bi loolu lay ñaan ñu may ko mu ne itam ginnaaw nga xam ne wàllu docteur yi wàll seen wàllu su borom leen may seen wàllu ci àdduna li nga xam ne moom la ñuy digle ñoom ci wetlu wàllu wattandiku ñu di ñu ñu di moom ndax wattandiku ci jaamu yàlla la bokk suñu borom ko diglee fegu wattandiku dafa bokk ci warteef bokk ci lislaam digle yonent bi sallallahu alayhi noonu la ko doon digle kon jullit yi itam faaw ñuy dellu ci njàngalem yonent ba ma gis naa ci ab image boo xam ne ay ilimaan ju ne ca président Siin moo dem ci ci jumaay jullit ya di leen ñaanloo ci yàlla te booba la jàngoro ji door a dugg ci Siin kon ginnaaw ñoom ñooña ñoom xam ne bu jafe-jafe amee bu ñuy dellu ci yàlla la ci gën a gaaw mooy jaar ci julli di julli ñaan barki yonent sallallahu kon noonu itam xam na ne li ci gën a gaaw mooy nu delloo ko ci sëriñ Touba ñaan suñu borom ci barkeb Serigne Touba li daal la Serigne waxoon ne nan nan ko jottali ñëpp dégg ko ne fii la nekk mi ngi ñaan noppalu gi waxoon na ko laataa ñuy wax ne wéradi gi dugg na Sénégal biñ ne dugg na Sénégal itam ñu wax ne kaay yi ci amoon ñett la woon waaye mi ngi doon waayu ñu dem ba bindaat wax ne dafa am ko jóge Italie dugg Tuuba àndaale ko waaye loolu lépp nag sëriñ bi nee na nañ xam ne suñ borom daal dara jëfewu ko te luñ ko ñaan ci barkeb sëriñ Tuuba dana nu ko may kon nan rafet njort ci ne lépp luy sedd lee doon luy jàll lay doon luy doon te luñ lu ci digal ci ni ñuy wattandikoo nu di ko def di wattandiko tey rafet jot loolu rek la sëriñ bi waxoon ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu